Alboury Modou Baye Fall bi ñëw ci Alboury mu may la xaalis biram penni Alboury yaay demal ta ñëw bàyyi buunu Alboury demal ta ñëw waa lii lan la ayca gars yi na neex buñ leen bàyyi xel ci bu ñu leen bàyyi xel Ameth dama bëgg ñu woo Alboury mu ñëw begaay sama mbër mi Mat Jaw ana Mat Jaw lati jaw jaw ma jaw fara jaw ma jaw xool Maam Jaara Samba yaa allo xam nañu ñëpp xam nañu xam nañu xam suñuy parents dinañ dëkk lii moom vraiment métti na agogo agogo lii agogo lii métti na de. waa lii kay weesu na métti gars yi man daal affaire yi comprendre ko. doo xam waral lu waral lii aussi doo xam sax lu ko waral. billaay wal kay xam sax ko waral. mais man am naa yaakaar ne police dafa mu ñëw intervenir coow lu bari léegi yooyu noonu. loolu tamit su boobaa tamit day yéen maanaam mais ñoom bu ñëwee ñoom déjà bu ñëwee présenté wu rek problème du am. parce que lii aussi vraiment man ah, man instant yii mënatuma gis sama sama bët yaa ngi jooy. yéeme na trop. mais c'est dur man dama koy wax. police saa yu ñëwee si mbooloo. pour aar askan wi bu ñëwee dañoo war a dañoo defar. Mm. ñoom bu ñëwee mën nañu organiser lii rek après gars yi avancé nekk mais parce que parce que parce que la police elle est là ñoom bu open lii la ñuy a def. man looloo man ba tey man affaire boobu daf maa jaaxal ñun police nu muy comporté woo ak ñun man daf maa jaaxal de wax yàlla mais man li xew man comprendre ko xaw ma lan moo ko waral comprendre nga xaw ma lan moo ko mais problème bi mooy problème mooy man police bu ñëwee au lieu mu yow organiser defar mais man sa ay police ñëwee bu dalee si kaw gars yi danga da nga naan ñii est-ce que ay nit la ñuy jëflante man loolu ma jaaxal quoi moo xam làmb la moo xam lépp la man affaire du daf may jaaxal léeg te ñoom bu ñëwee si une minute dix minutes quinze mën nañ gérer mën nañ gérer lépp te noonu ko tasee noonu noonu lañ ko mënoon organiser tamit dafa yéeme. yéeme na trop. parce que benn policier bi aussi maa ngi dégg gars yi naan fii la dëkk fii dëkk dafa mel ni gars yi xamee ko ci koñ bi ah, mun naa nekk parce que ñun ñëpp waa parcelle lan affaire yooyu noonu mais tamit lii nii tamit fii xoolal xoolal lu fi nekk si ay jeunes lu fi nekk si ay doomu aadama tamit ñëpp te ñëpp ci ay doomu réew mi tamit xam nga loolu loolu dafa yéeme mais yàlla baax na daal. baax na en tout cas doy waar vraiment doy waar. doy na waar lii moom na waar. doom yaay bëgg naa la. oui jaar naa la ni bëggee woo leen ko woon nii. non bëggee tey jii nii xam nga Anaconda Baval la. tey jii ak nu mu munti demee police même bu ñëwee. xam nga tey ku nekk da lay topp. ñun ñu bon lañ lay topp ñu baax lay top bu gisee nit fi ci nu muy toppee nit. yàlla moo ko may loolu. nañ ko ko nangul. tey jii même bu dul dara moom ginnaaw police ba la dëkk. nañ ko comme ne ñoom nañ ñëw sécurité même bu ñu gisee booy def ñaaw teew sax nañ ko muur mbàjj man ci loolu laa gëm quoi te booy bi si gox si gox bi lay lay représenté nañ ko dimbali gis nga lii bu ñu koy ñoom ñu ngi koy bi dañuy gën a siisu di dund lu leen neex. mooy li ma la wax parce que siisu dañoo siisu si lépp man bu yewoon nañ toj sam bopp man man li jëntiwuma loolu nañ toj sam bopp. man gërëm naa lacrymogène yi ñu dóor si biir mu ñuy muur màjj mais yow buy ndëe nga jaay booy prek léegi après lii moo tax booy def ay crime parce que dañ leen man maa la ko wax lii faju defarul dëkk gis nga nit boo da amee zeres zeres muy muy dund benn affaire da ko si jàppale mais pas di ñëw di dóor ay lakkale si kaw gaay yi xoolal booy ni ñuy dawee man du ma ndey man du ma man du ma daw de man du ma daw barki Rasulullah du ma daw. mais na mën a ñàkk quoi. lu sax xarañu ñu njàpp yi soo bëggee dégg dëgg xarañu ñu barki alxuraanu kari parce bu ñu xarañ noonu mën nañ ñëw xoolal tenir booy te coow am même bu ñu la gisee nga def na sax nañ la mbuur mbaaj ba affaire yi jeex ñu dem wala képp la nak sax yóbbu waaye déggoolu ma la amul ay jàpp parce que boo fi jàppee nit booy ay dañuy xam talu boo fi jàppee nit boo dañuy yëngal baal mu sedd muural mbàjj parce que si koñ bi nga dëkk loolu laa wax eh muural mbàjj parce que booy si koñ bi nga gis man loolu laa gis boobu après bu demee ba yàgg nga ñëw kër mbër mi ne ko defaral sa encourage néeg nii noonu lañuy noonu la ñuy yaree xale xale nekkul da ngay defee affaire ñu bugg la yar si saas parce que day ñëkk sa papa sax du a jàppale booy bi dañ ko war a jàpp bi koy topp nii sëriñ bi moo ko ak yàlla parce que borom daaru parce que day bëggal nit ñi. Baye Fall Baye Fall dëgg la nga ne na ma dee laa la wax dee. naa loolu xam ay ca noonu la demee open press bi maa lay fay booy dañ lay yéegloo ko ko waa bilaay sama bëti ñu ngi jooy waaw noonu la demee yow moom taxaw ngir ngir ngir ngir ëpp na peut-être yow jàmbaar nga ngir bëgg naa booy aussi bu ñu yàq suñu parcelle waa parcelle foo ñëw nag ñu fay fekk mais xam rek booy ay tout tàng lañu centre bi nag dañoo juum quoi ñoom juum nañu ndax xam rek bu dee benn booy benn personne ñoom war nañu ma am dignité ak personnalité boo ko mën a jël ñëw jël ko ci diplomatie yóbbu ko te dara du xew te du yàq après presse dara Anaconda jàmbaar la borom baax nga dañ a ko a rafetee ñaanal jàmm rek dañ lay ñaanal jàmm ah waaw lii man sama bët yi règlement de compte civil ak policier moo amul règlement de compte nañ ko réglement de compte feneen mais buñ ñëw ba fii nii ni ñuy organiser def si seen xaalis ñu ñëw fii di règlement de compte ak ay règlement de compte ak ay xale ndaw xale boo xam ne ay 12 ans 13 ans la am ñu ñëw moom moo tax ñu tas open press bi ni door fi ay lacrymogène baay li du yoon Sénégal lii dañ si war a jóg dëgg na li ma lay wax lu leer la lii problème bii nii am fii li ma fekkee la du dañ lu xew benn booy la lañ fekk koñ ba mu toog ñu ramasse ko ñu ramasse ko jàppewu ñu ko dara de ramasse booy bi barki Seydina Mohamed dem benn kër di fa xeex yaa ngi dégg booy bi rëcc ak manot yi tey ñu fekk fii booy bi mon mon ak booy bi de mu toog ñu ne force dañ koy yëkkati même même bu dee sax yow policier nga xam nga booy bi xam nga seen kër yaayam si biir police bi lay liggéeyee yaayam si police bi lay liggéeyee si biir police bi lay liggéeyee même bu demee noonu yow fuul bi ñëw nañ taxaw ba muy dóor boo muy for xeer di ko dóori ji maa ko téye ne ko gaan bul joobee. gis naa la ngay xiiroog di di jàpp Seydina Mouhamed tee ko ne ko gaan parce que nag man ak ñoom ñoo far ak booyeeg yëpp ma man la baay bu mu demee nii sa waay dem fi xoolal indi fi yoole ba pare dóor fi ay rek romazel ndax lii yoon la si ay compresse. lii waa ji gis naa mu génnee fetal aussi du yoon ma tee fetal bi barki Seydina Mohamed lii du yoon xoolal ma li may wax nii si alkaati yàgg naa wax si kaso bi di wax si police ma mais lii nii li ma siy wax li ma siy wax lu leer la. journée des espoirs ñu ànd ci ak Momo production laa ilaaha illallah Modou Baye Fall bu ñëwee rek ngeen xam ni ñëw na. le 20 mai ci arène national première édition drapeau Go Faye mi nga xamante ne ni moom la waa Parcelles Assainies bëgg. Momo production dem jële ji Boy Sey numéro 2 daal di koy boole ak Anaconda. combat xale combat njarndéem. Ronaldinho ak Yankao Junior ci bés boobu la ñuy jàkkaarloo drapeau Lirou Diane monument Guédiawaye. ma Xadda jàkkaarloo fa ak Milkzo. Cracks dina fa jàkkaarloo ak Ndiol Waalo. Sey Jàmbaar jàkkaarloo fa ak internet. drapeau Fanta Fashion Param 2 jàkkaarloo fa ak Marley Junior Darzo dina fa jàkkaarloo ak Mam Fadi Ahmed Dieye Lac Rose numéro 2 ci bés boobu la ñuy jàkkaarloo waaye mbokk yi ndaw dina fa jàkkaarloo ak Mas Bantamba Fils de Gaynde jàkkaarloo fa ak Zëmbul mbokk yi Momo production du wét ci bésam boobu benn yoon ndax King Boisson dina ko gunge Huile Jador ak Harmonia ci bés bi nag Modou Baye Fall mi ngi ci woo waa France waa Belfortville Mère Ngone mooy yaayu daba Oumy Dioum Chéri Modou Dioum Cheikh Baye mbokk yi ñooñu ñooy ay invité Momo production ci bésu le désespoir.